te yàlla tegum napp lam ñu digal ci suñ digg moom mooy ñu am ci moom yërmande akum ñeewant ak taxaw ko suñ kem kàttan waaye li gën a bari léeg-léeg wala lu bari boog léeg-léeg safaan bi la def ku noonu dañ koy jël di ko sabantal di ko doyadal wala ñu jël ko di ko foyee bari na lool loo koy gis ci ay jataay ci ay jataay garam place jataay yu bari nit ko xam ne am xelam dafa xaw amuk des ñu jël ko def ko foowukaay def ko reetaanukaay nga xam ne dañ koy woo buñ bëggee ku leen wax lu ñu reeta lu ñu reyee moom la ñu woo mu leen di ree reyal euh, reetaan loolu du nite du jikkoy jullit itam du jikkoy nite du jikkoy jullit itam ndax ku nite waroo yëg yëg-yëg yu mel noonu ci sa moroomu nit ndax xam nga ne bu doon sa doom joo jur wala muy sa way jur wala muy sa mag wala sa rak doo nangu ku ko def noonu da war a xam ne nag bu ko doonul ci yow it doon na ko ci keneen wala ñeneen la yonent bi alayhi salatu wasalaam waxoon saxaabi ba rek daa amoon ci saxaaba yi ku ma sa ñëw ci yonent bi daal dama bëgg nga may ma ndigal ak sañ-sañ ci ma ma mën mooy yàlla mooy yàlla ak jigéen nee na bi mu ma ko waxee bi mu ko waxee yonent bi alayhi salaatu salaam na ko waaw ndax yow bëgg nga ko def loolu sa jur bëgg nga genn góor gu doon jàmbur seq ak sa waajur naka su dul noonu ndax bëgg nga ko mu ne ko ah déedéet mu ne ko ndax bëgg nga ku ko seq ak sa sab jigéen sa mag jigéen wala sa rakk jigéen mu ne ko mukk ndax bëgg nga ku ko seq ak sa soxna mu ne ko déedéet limal ko ñu bari comme ko limal ci mbokk yu jigéen ñi ko war mu ne ko déedéet mu ne ko dangay xam ne nag kaneen koo ko bëgg a itam dara la ca kaneen moom it ni ko ñenn ci ñi tudd doon na ci yow te ñam doon dara ci ñoom ñoom itam bëgguñ ku ko seq ak moom loolu bind bu am solo la boo xam ne yëmut ca loola waaye ci lépp la feeñ ci lépp ki am xelam jaxasoo da nga wara xamne ni nga xamé né bu doon sa mbokk mu jege ci ñooñu ma limon wala luy ñu mel do nangu ku koy foyé nonu nga wara xamé né itam ka nga dajal ci mbedd ma wala ngay di daja ci koñ bi nga diko wo diko foyé ko fooyee ci xeetu fooy nga xamné ak nu mëna démé doon donte na sax da koy wo mu ñëw di wax wax yu xoromu yëkëti nga yëkëti xaaliss jox ko wala nangam yoy yépp ci foyé ko rek la bok ci foyé nit dong la bok du yenn bu dee daa am loo ko bëgg a dimbalee di ko jox te yàlla tax du cab sart nga di ko waxto waxloo wala nga di ko euh, dugal ci yenn yi du cab sart yëkkati li nga koy yëkkati jox ko te yàlla tax mu dem dimbali ko waaye foo fooye gi amu ci yoon kon loolu lu mat a sedd la dëppoowut ak diine itam ndax lislaam moom nanguwul foo fooye mbindeefum yàlla mu mën a doon rawat na doomu aadama nanguwu ak anam gum mën a doon nag nanguwu ko ci gennaanam mu wax ne niki non it ki yor jikko ju baxut mu misal ko ci ko Bol kañaan bul and ak mom ndax momit sak and ak mom lor na ci bari lor bu amee ni tam lor ja na bari lor wala mu upp ndax ki natto jikko yi kañaan mom ak no mana def ak lo mana defit kañaan gi ci moom mënoo ko tàggale moom faw loola yàlla xéewaleel ci xéewal du la ko yéene mukk noonu lay demee man na la ko fesalal man na ko nëbb du la ko fesalal waaye du la ko yéene mukk te ñàkk gaa yéene mën naa jur itam lu man ci xeetu pexe ngir nga ñàkk ko dana ko def kooku nag ànd ak moom du njariñ ci yow te it xeetu lor joo xalaat ak joo xalaatul ju ne mën na caa juddoo mën na caa juddoo bari waa na koo àndal def ko xarit yeneeni mbir di la gaar ci yeneeni anam sa xel du dem ci moom te fekk mën naa am lépp ci moom mii lay sosoo te doo ci xam dara loolu nag firiwut ngay def koo nekkal wala koo àndal lu xew rek nga ñaaw njort ci moom déedéet déedéet waaye dañoo bëgg a wax ne loolu dana am rek dañ bëgg a wax kon ki yàlla bind mbindiin woowu itam ànd ak moom amul njariñ ci yow wala lu mu am ci yow ci njariñ lamay lor moko yep kon na nga moytu di def ko def ko mel noonu ab mu ne niki non yit ku bari bëgg-bëgg ak ko xane aduna ay bëgg-bëggam koku yit dalay lor rek ndax dana la duggal ci lo xamne ne na am yow doon sa djublu waye mom mo la cey duggal ba leg leg bala nga xam la nga nek rek da ngay dem dem ba wessu nga di ko rëcc wees na ci dara kon ku bëgg adina ku def àddina mu yitteem ak ku bari bëgg-bëgg kooku dee su ko defu andando ndax faw sak and ak mom dana la lor lu bare bare bare bare bu la jariñee itam waaye beuy wi serigne bi wax itam day dox ci ñaari wet ci anam bu gii ñu ko waxee ak ci gëneen anam itam goo xam ne junj na ko ci yeneen mbindam te yi bu fekkee ne da ngaa jóg doon ku bëgg jaar soobu yoonu yàlla soobu yoonu yàlla daa bokk ci sart yi faw nga seet sëriñ bu matul sëriñ nga ànd ak moom àndandoo mënu ca ñàkk loolu sëriñ bi wax na ko ci ay bayit boo demee ca xoqal bu kaa wax na ko fa wax na fa ba wane ne waxuma la sax ab sëriñ waaye gannaaw boo amee sëriñ ba noppi it yeneen àndandoo yoo xam ne dañuy yokk sa yitte ak di la yokk farlu loolu mënut ñàkk ndax doomu aadama moo laaj loolu waaye ci googu itam kon booy wutub sëriñ itam wala ngay wut àndandoo mbokkum taalibe mooy àndal ci yoon wi ngir mu yokk sa yitte ak di la daggi ak ngay jariñ ci moom bu boobaa it kookee ngay àndal muy sëriñ ba wala mbokkum taalibe bi ma kum ca mën a doon melokaan yi moytu ko ci moom ndax am na koo jàpp ne daa am cër ci yàlla nga jóg dem wuti ko ngir di wut yàlla ci moom man naa am moom sax moo woote di wane ne da koo de da koo am da koy def te fekk am xelam a jaxasoo rek te yëgoo ko yëgu ko loolu day am loolu luy am la am xelam a jaxasoo te yëgu ko xaj na ñàkkut ay yum doon jëfandikoo yum doon sikkar ak ak yëf ba mu mujj na dugal ko ci leneen lu mu xamul loolu dafa lu am la loolu dem ba am yu muy gis ak yu muy yëg nangam jàpp na daa am tolluwaay bu mu toll wala daa am maqaama yu mu toll wala nangam te fekk benn maqaama yëgu fa tollut benn tolluwaay itam waaye xaj na jinnee ko fil ci yoon wala seetaanee ko fil ci yoon wala yeneen rek bu ko defee nag mu njortu ne am na tolluwaay bu mu toll ci diggam ak boromam te fekk tolluwut fenn ndax wilaaya bokkut ak yooyu loolu lu ma ta xam la wilaaya moom bokkut ak yëfi jinneeg bokkut ak yu mel noonu yëpp bokkuñ léeg-léeg nag ñu jaxase ko te duñ bokk kooku bu wootee wala nga seen ko di yaakaar ci moom boo tax nga dem ànd ak moom mu yëkëti ay yëf jox la ngay jëfandikoo yaa ngi moom do nga yem ndax Sëñ waxoon nañ ca masalikul Jinaan nañu ku àggut munta àggale kenn loolu munta nekk nekk ndakaaru gii Tuubaa ak Dakar lu ma deux cent lu ko jege ma ne la kaay ma yóbbu la Tuubaa te xawma won yon lañu jaar pour dem man nañu jek jek gisun bop Ndar mën nañoo jékki-jékki gis suñu bopp Kaolack mën nañoo jékki-jékki gis suñu bopp faneen ndax xawuma man yoon wi jëm Tuubaa wan yoon la xawma ko man na maa jaar ci yoon ba ci àggir ma jàdd fekk fi ma war a jàdd fi ma jàdd bokkut a jàdde faneen loolu lépp lu mën a nekk la moo tax mu ne la woon kii yegg mooy ki jokk ci ku yegg waaye ku jokk ci ku yeggut munta a yegg mu ko loolu mënut nekk borom xam yàgg lañ koo wax nit lu mu amul mënu koo joxe nit lu mu amut mënu koo joxe mënut a nekk kon loolu mi ngi mel ne nga ne dama lay jàngal xam-xam sàngam te xawma ci dara mënut a nekk xam sàngam laa lay jàngal nga ñëw ma di la ko jàngal te man mi la koy jàngal xawma ci dara mënut a nekk laa lay jàngal waaye mënuma la koo jàngal moom ndax jàngale moom gannaaw xam lay doon kon yoonu yàlla yi noonu la demee euh, ki noonu it am na koo xam ne it ma ngay woote ne daa amub cër ci yàlla wala daa nangam wala dafa nangam wala daa xam nangam wala nit ki seen ko njortu ko ca moom te fekk du dara lu may kuy woote rek la ab wootekat dong la boo xam ne nu muy lijjante addunaam dong lay seet jaare ko ci yoon yàlla te loolu it daa bari te naka jekk dafa mas a bari waaye jamono juñ tool dafa gën a raw loolu lu mat lu mat a bàyyi xel la li ëpp ci woote yi bu rafetee ci kawit it jëmut ci yàlla moom te loolu lu mat a xam la mat naa xam ne it li nga xam ne njuumte la ñu lu ñu bari di dugg mooy kee daal ma ngay woote ne day yeggale niñ ci yàlla wala day di yeggale ci maqaama sàng wala nangam ak nu mu ko mën a tuddee lu mën a doon nga ne man daal ay la yéwén diw bu dee la muy wax du dëggit waaye gis naa ne daal fi mu leen di jaarale fu rafet la ndax gaa yaa ngi def nii ñu ngi def naa déedéet loolu du nattukaay bi de l'islam du nattee noonu diw mi ne daa ñëw ci man ma ne ko dama lay yeggale ci sa borom wala dama lay yóbbu ci maqaama sàngam dama lay tërbiya te man li ma wax da awma ci dara yegg ci suñu borom sax xawma lan lay firi baa di laa dégg noonu di ko répété rek waaye xawma lan lay firi te loolu mooy li bari bari na ñuy wax yegg ci yàlla xam yàlla nangam nangam te yi ñuy wax boo déggee ñu wax nga xam ne kii li muy wax daa déggee baat di ko répété waaye dëgg dëgg li wax xamu ko xamu ko dëgg dëgg li muy wax sax xamu dëgg dëgg lu mu doon nga ne da ñëw ci man ngir ma defal la loola te man ci dara xuma ci dara itam yëgguma ci fenn mën naa laa jox ay ay sikkar ak ay naafila ak ay yëf yëfaan yu bari di la ko def loo nga di ko def dëgg la loola mën na laa jariñ ci wet waaye dañuy bàyyi xel ne la la taxoon jóg yow du loola xam nga soobu yoon yàlla dafa mat a fàttali ne ab niveau la tolluwaay la du force nag ci ñëpp ñu def ko lii farata ci nit ku nekk lu munta ñàkk ci mooy doon ab jullit mooy farata ji munta ñàkk ci nit ku nekk yoo xam ne boo ko xasee def bu la neexee di dox ci biir njulit googu na nga ca mën a doxee sa kem kàttan ba yàlla di la fi jëleek jàmm bu ëllëgee suñu borom àtte la yàlla na la ko defal ci yërmandeem waaye nag daa am ñoo xam ne dañoo am yitte ju gën a kawe loolu am yitte ju gën a kawe yam ci doon jullit rek boo xam ne dañ yem ci niveau bi li ëpp ci mbooloo mi di yem ndax xam nañ ne doon jullit itam ay niveau la amaat ci biiram yu gën a kawe mu bëgg a nag ca daraja yëgg na kawe kem kàttanam tax mu seet koo xam ne jaar na ca yoon wa ba yegg ca yegguwaay ba walla boog weesu ca ay wecc ay ay yu bare bari mu bëgg koo ko yéegal ko ba mu fekki ko wala mu jege ko loolu mooy ab sëriñ ak bi loolu la sëriñ bi àndoog moom ngir àdduna mokk àndoog moom ngir sa say say business ak say yooyu tax ko jóg yàllaa ko tax a jóg yàlla ngeen ànde yàlla daa am cër boo bëgg a am ci suñ borom ta xam nga ne mënoo koo am lu may ne da jaar ci loxo yi ku jaar ci yoonu ba am ko nga yaakaar ci moom am ci moom njafe rafet njort akuk dëggal ñëw sóobu ci loxoom ngir mu yeggale la ca bu boobaa bu dee ku ko man boo jaaree ci fam la jaarloo te moytu lam moytuloo bu yàggee insha allahu taala danga nga dem ba nga bëggoon danga ko am waaye nag bu dee koo xam ne loolee lay woote woo waaye amu ko te nekku ca kum mën a fexe ba nax la ba dugal la ca lam nekkit loo ca mën a dox dox doxit yegg fa nga jëmoon moom doo ko def la la tax a jóg doo fa yegg loolu nag moo mat bàyyi xel ndax bi ngay ñëw daa am lu la tax a jóg li la tax a jóg nag boo ko amul rek mooy échec nga la lay firi li la tax a jóg boo ko amul rek mooy échec te li la tax a jóg moom doonul doon jullit buy jaamu yàlla rek rek yam ci waaye danga bëgg jaamu yàlla yi gën a kawe dem ba wees say cër waaye dugg ci sa xol dugg ci sa lépp sa jëmmu jëpp doon jëmm juy jaamu yàlla waxtu wu ne buy nelaw ak buy yeewoo ak xaal bu mën a nekk loola nag ay jëf koy maye. ak i taxawaay kii nga jaar ci loxoom nag te mënul loola lum la mën a defal ak fu la mën a yóbbu it la la taxoon a jóg moom yow amoo ko boo dee ko xamit te xam la la taxoon a jóg lu mu dëgg-dëgg kenn du la nax kenn du la nax yàgg-yàgg danga ko fa bàyyi danga ko fa war a bàyyi dem wuti keneen ku la ko manal loolu nag lu mat a bàyyi xel la ndax bari na koo xam ne loola lay woote waaye la muy woote doonul ne la muy woote lu am la ci moom walla lu mu am la wala lu ma xam la waaye da koy woote rek ngir ne gis na ne nit ñi bëgg nañ yàlla bëgg nañ lu baax mu bëgg àddina moom it di ko wut bëgg na mbooloo bëgg na darajee àdduna bëgg na alal bëgg na tur bëgg na lépp xam na ne yoon woowu yoon wu gaaw la ci am ko ci boo xamee na ngay naxe nit ñi musóobu ko ngir nax nit ñi ngir rek amee ci ñoom la mu bëgg bu ko defee nit ñi yaakaar na yàlla la ñu am ci moom te duñ ko am ci moom bu faw ndax amul yàlla ba di ko jox kenn te moom mën naa am li mu bëgg ci ñoom moom moom mën na ko am ndax adduna dong bëgg ci ñoom mën ko am ci ñoom ca nam leen di naxe yooyu yëpp nag kon mu ne bu la ànd ak koo xam ne lenn ci melokaan yooyu mi ngi fi moom kon booy ànd ci yoonu yàlla na nga ànd ak koo xam ne yàlla kese kese kese kese moo nekk ci moom te yàlla kese kese itam mooy bëgg-bëggam mooy yitteem kooku ngay àndal doog a jariñu bu dee bëgg ngaa jariñu mu teg ci ne niki noonu it ci jataay yi ngay toog ni nga xamee ne nit mënut a ñàkk muy ami toogandoo te loolu waxoon nañ ko démb itam na nga sédd ba saa yooy toog itam ka ngay toogal na doon koo xam ne da jariñoo ci moom ci sam xel wala nga jariñoo ci moom ci sa diine mu ne kon képp koo xam ne sab jataay ak moom lu mu yàgg-yàgg lu mu bari bari bari doo jariñoo ci moom ci sam xel doo jariñoo ci moom ci sa diine kooku bul toog ak moom ndax toog ak moom amul la njariñ kooku toog ak moom amul la njariñ te loolu yi lu bari la ku nekk ci ñun boo xoolee man ngaa xool ne ñu bari ca ña ngay toogal bari na ci ñoo xam ne man ngaa am ak ñoom nangami at ay jataay doo yëg loo jariñoo ci ñoom ci xel doo yëg loo jariñoo ci ñoom ci diine kon nak moy lan nga jarino ci mom war nga koo xool te mën naa am bo nattee da nga gis ne loro nga ci mom ndax taxna la di wax lo wurtu wax wala di def lo wurtu def wala sax mu wala ay jikko yo ne sun ci yow kon lo lu mat di baye xel mom itam mu ne la képp koo xam ne daal doo ci mom xel do jarino ci mom diine bul tok ak mom mukk de ko moytu wala bok bu la yàlla nattoo ba ay jataay di leen boole te munta ñàkk ci yow it ndax loolu rek la mu am yàlla nattoo la koo xam ne faw ngeen di toog ndax circonstance yi leen di boole te doo jëriñoo ci moom xel doo jëriñoo ci moom diine waaye bu boobaa la cay sa warugar mooy fexeel ba xam yitte ja fam toll nga di ko ca yamale ca jataay ba fexeel ba itam boo ko mënee sa kem kàttan di toog ak moom ci ci kaw te bañ di toog ak moom ci biir loolu mooy fexeel ba boo toogee moom ci ci ci jëmm itam sam xel ak sab xol bañ a toog ak moom loolu nag euh, ab liggéey lay laaj ab liggéey la mu ne borom xam-xam yi dañuy wax ne li tax ma lay moytu loolu lii mooy borom xam-xam yi dañuy wax ne nit kat. te loolu sax wax la joo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wa ko waxoon nit kum mën a doon diineem ña ngi koy natt ci diine yi kami jaxasool ak kami xaritool kon ku mën a doon ci yéen balaa jaxasoog nit wala muy xaritoog nit na xool kan la kooka kan la moom ndax ku mat a jaxasool la wala ku mat a xaritool la mu doog a jaxasoog moom doog a xaritoog moom ndax ku nekk ci ñun sa diine ñu ngi koy natt ca diine yi sab xarit ba ngay nekkal ka ngay jaxasool mu daal di ci teg wax ne moo tax ci bunt boobu am na wax ju am solo joo xam ne sayyiduna ali radiallahu anhu mu tedd mu mu ñu xam moo ko waxoon muy ay bayit yu am solo dafa waxoon ne yow sama mbokkum jullit maa ngi lay dénk nit ku xamut tey melut na mu war a boole ca wala bu xamee itam yorut jikko ku xam yorut melokaanu ku xam maa ngi lay digal bul ànd ak moom mukk maa ngi la koy digal te maa ngi la koy waggarloo bul ànd ak moom mukk bu ko defa àndandoo ndax bariwaa na koo xam ne ku yoroon jikko yu baax la ku yoroon melokaan bu baax la waaye bam jaxasoo ku melut na mu koka da mujj wal ko jangora kon de ko sédd bax bax a di wax ne ndax nit kat melokanam, ak la ca mom dañ koy nat buñ ko bëggee xam ca kami jaxaso la kami andal ni nga xamé ne nit ki buñ bëggona nat aw doxiinam rek ci doxiinu kaw wi ñu xam dañu xol kama andal ba mi dox jëm barab sangam kooko jéego yam doon jéego nu mu doon doxe ñu xam ne ñoom ñaar duñ sore jéego duñ saree doxin kon ci wàllu biir gi muy jikko yi itam noonu lay demee daa di wax ne ndax it mbir mu mën a doon rek faw ñu jéem a luñ ko mën a nattee te lu ñu natt lu nekk dañuy seet lam jaxasool ak la muy méngool ak la muy àndal ca loolu lañ ko mën a natte kon yow it ki la xamut bu la bëggee xam sa mbir mi ngi koy natt ca kam gis nga jaxasool kam gis nga jaxasool rek te kooku lay natt te loola léeg-léeg njuumte mën na caa am ndax léeg-léeg nga jaxasoog nit te doo yor melo melokaanam waaye li gën a bari noonu lay demee li gën a bari nit ki nga jaxasool moom yéenay mujj bokki jikko ndax boo leen ko bokkutoon ci tàmbali it dana la koy wàll par benn benn ba nga xëy xëy mel ne moom te doo ko yëg loolu nag bindiinu doomu aadama la moo tax kon sédd ko bu baax mu teg ci ne am na it keneen ci waykat yu njëkk yi ku waxoon béy ju am solo koo xam ne dafa waxoon ne maa ngi lay dénkit yow sama mbokkum jullit saa yoo nekkeek aw nit saa yoo nekkeek aw nit seetal ña ca gën doon tànneef ya ngay ànd ak loola lam lay yóbbe mooy da ngay mujj yées rek ne moom wala na ñoom kon foo nekkee ku nit seetal ña ca gën aw melokaan aku doxiin ngay ànd ak ñooña di jaxasoog ñooña ngir xaj na lu desoon ci yow ci melokaan aku doxiin ci mat ñu wàll la ko nga gën a baax gën a mat waaye bul seet ña ca gën a ñàkk solo aw melokaan ak jikkoo ki doxin ngay jaxasoog ñoom ndax boo ko dee def fa ngay mujj mooy dangay mujj mel na ñoom walla lañ la rawee dootu bari nga mujj bokk ci yees ña rek teg ci ne ndax nit kat ku mën a doon boo ko bëggee xam jërul ngay laaj diw moom nu mel laajal kame xaritoo la kame àndal nu mel rek bu ñu la ko waxee rek li gën a bari moom it noonu lay mel la gën a bari moom it noonu lay mel te loolu du dara lu may ndax nit ku ne kami jaxasoo la ka àndal du tàggook moom kooka lay roy kooka lay def ab nattukaay kooka lay def ab te bu yàggee fàllu faw dana ko walla faw dana ko walla ay jikko ndax nit bu bëgg moo tax mu ne nit bu bëggee baax na seet ku baax kum jàpp ne moo ko raw ci mbaax muy ànd ak moom bu ko defee bu yàggee kooku wàllu ko mu baax waaye bu defee safaan bi it safaan bi rek lay doon mooy li wolof yi doon wax rek wala ku kenn ci wolof yi doon wax muy wax ju solo ne saa yu la bon téye da seet ku bon ngay ànd ak moom bu la seetal ku bon ngay ànd ak moom bu yàggee rek léegi nga xëy mel na moom wala lam lay rawee dootu bari waaye safaan bi noonu bu la baax téye itam seetal ku baax ngay ànd ak moom bu yàggee da mujj mel na moom wala lam lay dootu bari mu teg ci ne ci sa digg ak nit ñi itam na nga moytu di doon kuy wutal nit ñi ay pakk-pakk wala nga doon kuy lijjanti ak a luññutu pakk-pakki nit ñi maanaam seeni seeni njuumte ak seeni rëcc-rëcc bul di gëstu mukk itam ayibi nit ak ayib ju mën a doon bu koy gëstu mukk wutal nit ñi ay pakk nag mooy wutal leen tegal leen ay ndëgg sërax rek loolu lu bari la ci jamono jamono lu dafa mel ne loolu dafa xew maanaam nit koy togal ku ne wala koy waxal ku ne yaa ngi jéem a seet noo fexe ba piégé ko ba yàqal ko wala ba yàq addunaam léegi foofu lañ toll moo ñu yóbbee nii ñuy def ba ci suñ jumtukaay yi ñu yor léegi daanaka ñu bari booy wax ak ñoom boo tàmbalee wax rek yëg ne ñu ngi lay enregistré ba ci jataay toog ci jataay sax jël téléphone di enregistré nit te fekk jubluwoo ci lu may ngir bu yee nga man caa def def ko posé boo mën a jaar ba mën koo yàqal wala di jokkoo ak nit téléphone même noonu ñu bari ci ñun suñuy téléphone boo demee dañ koy programmer noo xam ne appel boo jot ci nit dañ ko dañ ko enregistré loolu am na téléphone yi ñu yor appel boo jot rek nit walla nga woo ko walla mu woo la dañ koy enregistré directement léeg-léeg nga man a wax ak nit muy wax ak yow ay secret wala lu ne loo xam ne yow la ko waxal ndax téléphone jumtukaay la rek xaj na bu njëkk ni jamono jàppandee woon nga xam ne mën ngaa jóg dem toog ak nit wax ak moom léegi bëgg wax ak moom léegi xat-xati jamono mu yeewu ko fépp nga mën a toog fa nga ne ak lu mu sori sori wax ak nit ki ci téléphone mu mel ni yéen ñaar dong ngay wax te dëgg la yéen ñaar dong nga doon wax mu wax la mbóotam ak sekkareem lépp nga enregistré ko walbati ko rek balancé ko diw sàngam nit mën caa jóge daanaka addunaam yàqu loolu ne mën caa juddoo te bis bu set ñu di ko gis bis bu set rek loolu lépp génnut buntub wutal nit ay dëgg sarax rek loolu dong la ci loolu rek la dugg loolu nag ku ragal yàlla te xam yàlla danga ko moytu ndax ku ragal yàlla danga ko moytu sunu boroom yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo waxoon ne képp koo xam ne dana sutural ab jullit sunu borom dana ko sàng mbalaan mu sutura ëllëg yamal xiyaam am mbalaan mu sutura jafe te ñëpp ajoo ko waye kep ko xamne itam da nga fassiyene def sa dund ci di xoti sutra nit ñi di len wer di len jaxaseeg nit ñi di jema a génn seeni seeni mbóot ak seeni sik di ko tasare ak di len jema tegal ay ndëgg sarax ngir jëm leena a yag yag sunu borom dana xoti say sutra ba ñëpp jànloog say def yow itam ndax sunu nekku fi rek ngir bàyyi jaamam ñi ñu nekk ci seen biir di foyante def lu neex yàlla nekk fi ngir loolu képp ku dëkke foyee jaamam yi dëkke di leen baañaxe nu la neexee la neex def leen baye boo nga xam ne bis a ngi ñëw boo xam ne da da nga ko yendoo te doo ko bokk kenn te boobaa it ñu bari ci ñu ngi ko seqaloon dañ la koy yéene loolu nag lu ma ta la mu ne waaye itam di gëstu awray nit itam te mooy ay ayibam loolu itam na nga ko moytu ndax amalu la njariñ nit ñi seen ayib yi ñu am boo dajale woon lépp ba xam ko dajale ko ci kay téye amul la benn njariñ yow ndax niñ mel mënoo ko mënoo koo dindi am na ci ñooñ nañ mel mënoo koo dindi moom te am nga yow sa wàllu bopp loo la war a doy sëkk loolu moo tax sëriñ bi nett li bayit yu am solo yoo xam ne abooy waykat ko waxoon ne nit ñi seen ayib ñu muur suturaal ko mu nekk seen biir ñu di ko jéem a suturaal seen ayib yooyu bu ko jéem a wuññi mukk ak di ko jéem a soo ko lu ñutu ndax boo ko dee def faw yow it suñ borom dana xotti sa sutura ba ñépp janloog say ñawteef daat ne li la war mooy nit ku mën a doon buñ ko tuddee ci barab fu mu nekkul wala ñu wax ba jëm ci moom la ca war a doon sa warteef mooy yow xoolal la rafet ca moom nga xam ko nga wax ko te yam ca ñaawteef ya nga xam ci moom noppi ca ba mel na ku xamut waaye bul ayibal kenn ndax danga war a xam ne lépp looy ayibale nit rek boo ko xoolee ci sa bopp da ko gis ci sa bopp yooyu kon gannaaw am nga ko sa bopp war na caa doy mu tek ci mom serigne bi daal ne kon lima lay denk moy nga melne ne way kat banen waxoon dafa waxoon ne man dal jikko ju rafet dama bëgg jikko woko sama kem katan luma man luma ma man dal sama yitte jema def ci jema jikko wo jikko rafet di sama kem katan ko di bañ lolit nak di ayibal kenn wala kenn di ma ayibal di gis ci man lu ayibal nayi dama fasiyene itam melowo melokaanu lewet ba loolu dox sama digganteeg duma siq kenn waxante safaan wala ŋàññante wala waxante wax ju bon ndax xam naa ne ki yées ci nit ñi mooy ki nga xam ne itam jëpp mi ngi ko def ci ku ko waxal mu waxal la wala balaa koo kenn waxal mu waxal la kooku mooy ki yées ci nit ñi loolu ñun léeg-léeg dañ koy waxoon nañ ko bërki démb léeg-léeg dañ koy dañ koy namoo maanaam wane na man du ma du ma wanal baat kenn loolu da koy dégg surtout suñ bokki jigéen ñi te loolu njuumte la du ma wanal baat kenn loolu du tagg loolu aw xas la fawu ñu xam na nag mbirum jikko moom ak melokaan lañ cay tagge nit ak di ko nawe loola moom mooy li suñ borom bëgg mooy li mu gërëm loo waaye doonul li sa bakkan bëgg wala li mu gërëm loo déedéet déedéet loolu fi lañuy ñuy juume léeg-léeg dañuy jàpp ne ñun liñ ñuy nawee mooy liñ jàpp ne ni lañ ñu war a nawee rek loolu mooy li ñu war a nawee te déedéet li ñu war a nawee war ñu ko ak liñ ñu war a xeebe mooy li ñu suñ borom tëralal ne jaar leen fii loola jaar ca mooy liñ ñu mooy li ñu war a nawee nit ak ku mën a doon nag nit ku rëy keeg ki jàpp ne du kenn nag ñëpp a ci am ku mën a doon liñ ko war a nawee mooy mu ja teg tànkam ci ndigal ci liñ ko digal mu teg fa tànkam loolu mooy li ñu war a nawee nit ak ku mën a doon nag waaye li ñu war a xeebe nit li war a doon ak doyadi ci nit lii ak manqué ci nit itam doonul li nit ñi jàpp ne ak manqué la wala doyadi la waaye mooy mu jaar wala mu teg tànkam ci fi nga xam ne mooy fiñ ko tere mu teg fa tànkam loolu mooy ak doye di ci nit te loolu nag ci mbirum teggin yi ñuy waxtaanee ak ko ci ñaari wàll yooyu lay dox yiñ la digal ak yiñ la tere rek la melokaanu lewet ak nangoo wan mer ak jéem a yëkkati sa bopp sax ba weesu mer yu woyof woyofaan yi nga weesu ko ndax am na nit ku dul mel mom mu amut doomu aadama faaw day mer nonu ko yalla bindé waye man nga jema liggéey ci sa bop ba yu bari yi nit ñi mer dula jaral mer loolu lu ñu liggéey la rek da ngay fexé ba yu bari nga fénati ko bañ ko reyel ci sa xel loolu mo lay may bu ko nit ñi dee reyel yow doo ko yek nit man na ca mer mer mer bay fut futi yow bu la ko nit do xam do ko yek do japp ne dara la ndax da nga fexé ba woyofal ko ci sa bop da nga fexé ba woyofal ko ci sa bop bu boobaa du rëy ci yow ba di la jaral yenn yi kon lii fayda walla lii ful la nga jàpp ne lii am dignité daal wala am dayo wala respecté sama bopp wala nangam mooy damay doon koo xam ne man lu ma nit wax rek ma delloo la ko wala du ma du ma bàyyil kenn dara lu waaye waxat ma toppante ko yow ba mu sës wala jàpp na damaa war a fexe ba daa samoo làmmiñ ba ñëpp ragal ko loolu du jikkoy nit ku baax doonte ne jamonoy tey nag loolu la nawe nawee nit ñi daanaka waaye du jikkoy nit ku baax loolu du jikkoy nit ku baax firiwut ak njàmbaar itam ci nit dëgg-dëgg sax ak doye di lay firi ci nit dëgg-dëgg ak doye di lay firi ci nit ndax nit ku mat nit ku mat ci jikkoog melokaan mooy koo xam ne day mën a dékku lépp mën a toléré lépp nga xam ne mënoon nga koo fekk fii wax ko loo xam ne ñëpp ay tiit mu jël lépp mëdd ko wan ko du ko yëgal yaramam te du ko jëflanteeg yooyu itam loolu mooy melokaanu nit ku mat sëkk noonu mel waaye du doon ne koo xam ne foo na ko wokk rek mu xori la fi saa si loolu jikkoy nit ku mat mu daal wax ne damay jéem a góorlu kon ci wan gannaaw ŋàññanteeg nit ñi ndax xam naa ne ki yées ci nit ñi mooy ki bëggu ŋàññante ak delloonte kàddu yu ñaaw daat ci teg ne it ndax xam naa ne it nag doomu aadama yi daal nit ñi képp ku leen weg képp ku leen weg jox leen cër bi ñu yeyoo faw ñoom itam ñu weg la jox la cër bi nga yeyoo waaye képp ku leen xeeb doya dal la duñ la faale duñ la te fenn loolu moom mooy doo la fi doon wax koo xeeb mu yab la noonu la yàlla binde nit ka gëna a rëy ci nit ñi ci niveau yi doomu doomu aadama yi àdduna yii bu fekkoon kañ jàpp ne moo du dara sax mu xeeb ko doyatal ko kooku dootu ko faale moom fi saa si noonu la nit mel bu ñaar ñëwoon fii nga ne kii njiitul réew la kee njiitul réew la ñu romb fii nit kenn ki sabantal ko jàpp ne kii tekkiwul dara jërul xool jërul nuyu jox yitte kenn ko jox ko yitte faale ko ka ko faale jox ko yitte lay bàyyi xel moom ba faw waaye kee koy doy dala sabantal jàpp ne du dara du du yëg ne dara la moom itam doonte na ma nga yor palu ko adduna gu kawe loolu ci bindub nit noonu loolu daa bokk ci bindub nit moo tax nit ku mëna doon bo bëggé mu jox la cër bëgg mu wormal la dang ko koy jox boko wormalé jox ko cër momit mu delloo la ko wormalé jox la cër waaye ba ci kën japp ne sax ndax lool da amut ñoom dañ ko japp waaye lool da amut léeg-léeg dañ koy japp suñ doxee na yi daf ñu indil yo xam ne neexutu ndax fo dem am nañ lu mel noonu manam dañuy am ko xam ne dañuy kiti ne ki tekkiwul dara loolu jëw moo amut loolu moo amut ndax nit kii li nekk ci moom mooy lam la waxoon ca gannaaw ne danga war a sédd ci moom yàlla mi ko bind te xam ne nattukaay yi yépp amut solo ndax yonente bi alei salatu salaam wax ju doy war nee woon na ci buntub ñu moytu nit ñi woyof mbubb dafa waxoon ne bari waa na koo xam ne karaw gaa nga ne cuxur salfaañoo sol yére yu tilim jëmm ja fënd kenn du ko faale noonu la ko waxee kenn ci nit ñi du ko faale kenn du ko baxel léeg-léeg sax nit ñi dañ koy dog wala ñu di ko sabantal daan ne te lu mu dogu suñu borom fekk ko ca loolu mooy ngir da laa bëgg a wax ne la suñ nattukay adduna yi bokkut ak li dox ci yàlla bare waa na ku ñu xeeb dooy dal ko te jataay ba mu ne wala barab ba mu ne menn moom kott la fa yàlla diglu ña ca des ñépp ak seen daraja yu rëy yépp yàlla faalewu leen loolu suñ tuwaa wax nañ ko ci masal bi jinaan ne nañuy moytu nit ñi moytu yàlla ci nit ñi bañ di doy dal kenn bañ di xeeb kenn ndax bariwaana kuñ xeeb te moom la yàlla jox cër daan ne bariwaana koo xam ne aw turam siiw na ci àdduna sépp mu doon borom daraja ju rëy fu jëm ñépp jóg yegne ma ngay dem borom sangam tay ta fa yalla moko golo yam ci yalla lolou lu mat a la lolou lu mata sedd la amona kuñ daan wax waisul qarani waisul qarani ci tabi'un lañ koy bolé nit ku baxa bax la koy tuddu ci yan di ñaan ci mom di tawasul ci mom ois yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu fii ne daana koy junju di wax ci moom ay wax booba ma nga dëkk Uways ma nga dëkkoon ca côté Yaman ba ñu wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon Seydina Abubakar ak Seydina Omar ne leen buñ gisee Uways nañ ko wax mu ñaanal leen yàlla jéggalu leen yàlla loolu day wane ne dayoo bu kawe la am ndax yonent bee wax loolu te moo ne Uways moo ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñu dajee ci jëmm mosuñoo daje jëmm mosuta gisante ak moom diiru bu fi yonent bi fi nekk mosuta ñëw foofa bay gisee moom jëmm waaye yonent bi xam na ko loolu xamuk baatin la ba wax Seydina na Seydina Omar ne yeen fu ñu ko gisee nañ ko ñaanloo te wax ko mu jéggalul leen seen borom loolu xoolal ñaar ñi mu koy wax Seydina Abubakar Seydina Omar nga xam ne ñoom ci niñ ko jàngalee ci tawxiid ñoo gën ooy si ak li ñuy baax baax ndax niñ la koy jàngale mooy gannaaw bu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wéyee ci xeet wi Seydina Abubakar mooy nit ki fi féete kaw gannaawam Seydina Omar ooy si moom ñëwagul te ànd loolu ooy si moom la leen yàlla di wax la leen yonent bi di leen wax leen aleyhi salaatu wasalaam buñ ko gisee nañ ko wax mu jéggalu leen yàlla kon mooy am na dayo bu kawe bu ko yàlla jox ba lu bari xew ci ginnaaw bi ba jamonoy Seydina Omar ci xilaafaam waa Yaman ñëw aj si Màkka Seydina Omar ca bisu Arafa mu taxaw di di laaj Uways ngir di fàttaliku la la leen yonente bi waxoon alayhi salaatu wasalaam ci moom nga xam ne ci bisu Arafa mbooloo mel ni tirim Seydina Omar daal di jekk-jekk ne nañ ñëpp toog na ñëpp toog ñi nekk jataay bi ñëpp nañ yegg suuf ba mu des waa yaman ñoom rek nañ taxaw ñëpp jaaxle waaye dañuy def ndigalam ñëpp yegg suuf ba mu des ñu jóge yaman mu daal ci teg ne ñu jóge yaman ñëpp nañ yegg suuf ba mu des waa xaran muy giir gi Uways bokk ñépp yegg suuf ba mu des moom Seydina Omar daal leen laaj ne leen ndax Uways Uways mi ngi ci seen biir Seydina Omar daal di laaj ne leen ndax woy su mi ngi ci seen biir bi mu ko laajee am ku ne ko tontu ko nii nit ñi baaxoo ne ko woy day ña ngi ko bàyyi ca wet sàngam mu dajale suñ jur ya di ko di ko sàmm foofu la nekk nga xam ne ci société bi mu nekkoon kuñ xeb la kuñ doy dal la koo xam ne lu bari ci waa giir ga moom lañ dajale seen ab sardi lañ ko def seenug jur moom lañ dajale jox ko mu leen ko sàmmal Seydina Omar fekk woy su fa nekk nu yoog moom wax ak moom ba lu bari xew ca ci ay wax yu yéeme yéeme gaaral ko fa it ay gaaral bokk ca lam ko gaaraloon bëgg mu ñëw nekk Makka walla ñëw nekk ma Madina bu ko defee bu ñëwee ñu taxawu ko jël ci alale état bi taxawu ko ci waaye loolu lépp woy sa nanguwu ko daat ne jàpput ne gisul ci àdduna lu jar loolu ko ndax jàpp naa lem soxla lii muy liggéey doy na ci sëkk mën nag ko may xar yi jurug waa dëkk bi muy sàmm lañ ko cay mosal di ko ca fay doy na sëkk ngir mu mën a am lu dunde moom ci lim soxla jërut walla jàpp na ne yëlloowut état bi di am lu ñuy jël ci alal di ko jox yëlloowut loolu ba ni mu tàggoog Seydina Omar booba lañ mujj gisee ak yeneen ak yeneen yu bari yu ci kon loolu day wane rek ne léeg-léeg ñi ñuy xeeb di leen doy dal ci nit ñi njuumte lu rëy danañ ci juddoo ndax léeg-léeg ñooñee ñuy bàyyi xel yàlla mën naa am bàyyiwu leen xel léeg-léeg ña ñu doy dal ak di leen xeeb ñooña la suñu borom di bàyyi xel ñooña la suñu borom di di di diglu loolu kon lu mat a lu mat a bàyyi xel la ci suñuy jëflante sëriñ bi daal di ci teg wax ne am na yit waykat bu waxoon wax ju ama am solo joo xam ne lu mat a bàyyi xel la dafa waxoon ne bu dee ne da ngaa bëgg a dund daal ci àdduna sa sa diine mucc doon diine ju ñoŋ ba ëllëg boo dajeek sa boroom du am dara lu ci sikki walla lu ci mejj sab cër itam ci digg ak sa digg ak yàlla doon cër da ngay fexe ba saw wi nga sàmm ko ci wax ci yi nit ku mën a doom dangay ngay téye saw làmmiñ ci ayib bi nit ñi ndax kat nit ñi naa am nañu ayib ak i ak i sikk waaye danga ngaa war a xam ne ni ñu amee ay ayib ak i sikk ni nga amee ay ayib te ñoom am nañuy làmmiñ yuñ ko mën a waxee te ni nga xamee ne lu ñu def nga xam ko yow loo def ñu xam ko say na nëbbuwut ci ñoom. gannaaw amu lamiñ a tax nag ngay tudd seen ayib ñoom it xamal ne am nañu lamiñ mën nañoo tudd seen ayib te ñoo la gëna bari kon buñ maasee tudd seen ayib lam ci juddo ci lor ci yow moy gëna metti la ci juddo ci lor ci ñoom dal ci tek ne itam sa ñaari bët yi itam nga jëm ko sammu ci ayib nit ñi bañ ko gis bul xol ayib nit ñi sa yo xamé na sey bët jakarlo nak dara ci jëf nit ñi wala ci seen ayib ba nar koo xool waxal ak moom ne ko kat ngal la dimbale ma bul xool seeni ayib mukk bu ci sa yoon ne bul lu ñutu ndax kat man mii itam am naa ayib te ñoom it am nañ bi am nañ bët yuñ ko mën a gisee am nañ bët yuñ ko mën a gisee kon loolu bind la bu doy sëkk ci wet googu sëriñ bi jox ñu ko mu dolli ci ne bokk na itam ci teggin yi nga war a sàmm mu jëm ci sa bopp waaye itam làmbaa yooyu ci sa moroomi jaam ñi ngay jëflanteel mooy nga xam ne wax lu wérut wax lu wérut ak wax loo nërta def loolu ci yàq waxtaan la bokk te yi ayibal waxtaan la bokk te yi xotti war may nit itam ci la bokk ñaar yooyu wax lu wérut ak wax loo narut ñaar yooyu ci liy xotti war may nit la bokk te liy ayibal waxtaan it ci la bokk maanaam waxtaan ak lu mën a doon ak lu jataay neex-neex bu fekkee ne léeg-léeg ngay dugal ca wax ca lu wérut wala nga wax fa loo xam ne naroo ko da yàq jataay da yàq waxtaan tey yow mi koy defit day xotti sa warma ndax nit ku mën a doon ci àdduna ak dayo bu la nit ñi mën a jox ñaara ngi nii yoo xam ne bis bu ñu ko xamee ci yow dootoo rëy ci seeni bët mukk loolu lu mat a sédd la nit koo xam ne nit ñi jox nañ ko dayo bu rëy ci seen kanam moo xam dayoo lu mën a doon moo xam dayoo diine la wala dayoo àdduna la wala dayoo bu mën a doon ndax li joxe jox nit dayo lu bari la mën naa am ndombal tànkul adduna loo am moo tax jox la dayo man naa am xam-xamu diine boo am moo tax jox la dayoo man naa am palug diine goo am moo tax jox la dayoo man naa am alal moo tax jox la dayoo man naa am lu bare bare bare bare waaye lum ci mën a doon bis bu ñu xamee ci yow ne da ngay wax lu wérul keroo ngay sippiku ci seen kanam sa daraja moom day sippiku ci seen kanam nit ñi duñ naw mukk ak fonk ak a nawloo nit kuñ xam ci moom ne aw làmmiñam sàmmwul day wax lu wérut loolu lu mat a bàyyi xel la léeg-léeg nag nit ñi daa ñun danañ juum ci ñaar ndax suñ jëflante kaw yi ak li ci biir di dul bokk léeg-léeg te naw moom naw nit naw du jëfi kaw waaye naw mbirum xol la naw mbirum xol la naw nit ak teg ko fenn mbirum xol la jëfi kaw mën na koo jëmmal mën na ko bañ a jëmmal ndax léeg-léeg man ngay wan ci nit ci kaw ci jëfi kaw ne da nga koo naw ak da nga koo def nii te fekk aram ko danga koy rafetale rek waaye tëllu la fenn moom fenn la tullut ci yow léeg-léeg itam nit mën naa mel na ku ñàkk a jox nit ki genn paal genn gi ci jëfi kaw te fekk ci biiram ku rëy ci xolam la kon naw moo tax naw mbirum xol la naw nit nag ak jox ko cër buy dëgg ci yow mënoo koo def nit te xam ci moom ne kii kuy wax lu dëgg la saa yoo ko xasee xam ci nit keroo lay darajaam di sippeeku ci yow xam ci nit ki ne it kuy wax lum narul la ba tey ci la bokk moo tax ñaar yooyu dañuy yàq nit lu mata moytu la ba nit ki war naa fexe ba fu mu toll lu muy wax nay lu ci muy doon dëgg bu kenn xam ci moom muy wax lu wérut ndax am na loo xam ne nit mënu koo jënd teraanga la joo xam ne nit mënu koo jënd am dëgg toll ne fuñ nettalee na yaa ñëpp gëm ko teraanga la joo xam ne nit mënu koo jënd waaye bu doon lu ñu mën a jënd li koy mën a jënd du dara lu may saxoo wax dëgg ba ñëpp xam la ci wax dëgg kenn bañ a xam ci wax yi naka sud noona waaye gàcce la goo xam ne nit mënu koo jëndaat moom itam ba amaat njëgam la ko mën a wuutu muy yegg tàmma wax lu wérul wala sabantal ko wala nangam ba nit ñi xam la ci wax lu wérul ba fuñ ñettalee say wax kenn du ko bàyyi xel loolu am na ciw nit am na ñooñ fuñ ñee diw nee na ñëppay maase gëm ko ndax xam nañ ne lu mu wax lu wér lay doon même bu waxoon leen jaaxal sottee dañ koy gëm na xam nañ ne ci rek lañ ko xam waaye am na ñoo xam ne fuñ ne diw nee nañ ñëpp ne ah diw de moom ay waxam jarul duma sa loolu dara jaru ko fiñ toll nag léegi yegg nañ ci ñun wax lu wérul dañ koy café sax far léegi dañ koy café dañu toog ci jataay nit di fooye wax lu wérul di ko café nga xam ne dañ ci buntu kaf lañ koy dugal loolu musiba la yonente bi alayhi salatu wasalaam neewoon na te lu wax lu wér la neewoon na nit dana wax benn kàddu ci jataay ngir bëgg ñu rey ko rek kàddu googee jural ko ëllëg yomal xiyam mu xalambaayu ca xuri sawara yee juróom-ñaar fukki nawet juróom-ñaar fukki nawet mooy juróom-ñaar fukki at kàddu nit dana ko wax ci jataay jubluwu ca lu may wax xoromu nit ñi ree kàddu googee di genn dana ko jural ëllëg yomal xiyam xalambaayu ca xuri sawara yee juróom-ñaar fukki nawet loolu nag sëñ bi tab bi ca xuri sawara ya moom juróom-ñaar fukki seconde rek ëpp na waxuma la juróom-ñaar fukki nawet yan cal musal kon nit ki war na ko sédd war na ko bàyyi xel ak situation boo mën a ne tar tar ak neex-neexe ci yam saw làmmiñ moom del góorgóorlu ci di wax dëgg rek ndax dëgg rek a sakkan waaye bu la yenn circonstance yóbbu ci wax lu wérul ak jum mën a doon am na ñoo xam ne bu ñu bëggee rek seenu làmmiñ moom moomatuñ ko loolu mën nañ koo wax am na ñoo xam ne it safaan bi buñ meree lañu koy def buñ meree seenu làmmiñ lu ne mën na koo wax sosal nit wax na wax ju dul dëgg lu ne mën nañ ko def buñ tiitee it noonu buñ tiitee it mën nañoo wax lu ne ngir bëgg a jàpp ne moo leen mën a génne ci tiitaange ja te fekk ñàkk xam yàlla rek la yàlla moom bu la naree génne ci jafe-jafe boo waxee dëgg ak boo waxul dëgg lépp dana la ci génne waaye bu la ci narta génne wax lu dul dëgg du te du tax nga génn ci te li sëñ Abdou Lahad radiyallahu anhu doon wax rek ne lu waay wax wax ju du dëgg ba jot ca daa xamul dara rek waaye bu waxoon dëgg am ca lu ko ëpp bu waxoon dëgg dana ca jot ba jot ca lu ko ëpp kon moo tax lu nit di war di sàmmante waxtu nekk wax loo narut it noonu wax loo narut nit war nay sóoraale fu mu toll lépp lu muy dig nit na doon lum nar na doon lum nar mu nar mooy lu mu fas ci xolam ne am na yéene fas na ko yéene def waaye danaa def nàngam walla danaa ko wax wala nangam te fi nga koy waxee yow ci sa jëmm ki nga koy waxal bu yàlla mënoon def sa xol ab appareil di ko wan lam cee gis mooy nar xalaatuma ko loolu musiba la te même loolu it ci li ñu fayee la gi la bokk am na ci nit ñoo xam ne dañoo jàpp ne ñoom maanaam wàllug wax ak yooyu daal ak dige moom mbirum barab la rek jataay la maanaam bu ma toogee ak diw mu wax ma nàngam naa fexe ba rek la jataay bi rek jàll am na ñu bari léegi noonu la jàpp bu ko defee seen yoon nekku ci loo leen mën a wax man nañ la koo dig léegi ne danaa ko def waaye fiñ la koy waxee sax la ñuy wax ci seen biir xol na fasuñ ko yéene xalaatuñ ko maanaam mooy naruñ ko léeg-léeg nag dana jaawale ñaar te du bokk mooy ndax wax dara te naroo ko bañ koo def bokkut ak wax na nangam rek te defu ko defu ko ndax nit dana wax dara fasoo ko am ca yéene ngir jamono ji mu koy wax am na ci yéene ak fasoo gu wër am na yaakaar itam ci ne dana jàpp ci moom mu def ko waaye man naa dem ba jëmmi jamono suñ borom ak dogalam am yu ko gàllankoor ba tax mënu ko boobaa la mu waxoon defu ko de waaye doonul ne da koo nërtoon def moo tax dana ñett li wax ju am solo ju mat a nit li fii ñoo wax ne sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma radiyallahu anhu mas naa am ku koy tàgg ba wax ko lu mel noonu ne ko yow Mbacke loo wax loo wax def ko mu ne ko déedéet wax de loo wax def ko yàlla rek ko man wax na dëgg loo wax def ko kenn ko jagoo mu yàlla amul kenn koo xam ne loo wax da ko def loolu yàlla rek ko man ndax ku mën a doon da nga wax loo xam ne bis bokkut ak la suñu borom na ma dogal te la yàlla na ma dogal rek am nag mu ne ko danga naan loo wax loo wax nar ko lu ma loo wax rek nar ko maanaam lu ma wax nar naa ko lu ma wax lu ne fas naa ko yéene def du ma wax nit mukk lu ma fasul yéene def du wax nit mukk lu ma fasu dina def léegi nag ñun loolu dañ ko banaliser banaliser ba xam ne ba ci suñ bokki politiciens yi gis nga ko léegi ñun ñëpp gëm nañ ne buñ tollee jamono campagne électorale moom maanaam politicien bi li muy wax moom maanaam lu ko neex mën naa wax rek xam nga doy na sëkk xam ne lii moom mënta nakk lu wér wër am réew gox boo dem gox ba lay seeni problème bu ñu waxee ba noppi nga fas yéene ne lépp da ko def loolu xam nga ne mënta nekk régleel ñëpp seeni problème loolu moom yàllaa ko mënta du ko def kon xam nga ne mënoo ko boo dee wax dëgg normalement da nga caa war a seet ya nga jàpp ne mën naa nekk man nga ko nga jël ci sa kàddu ya nga jàpp ne mënoo ko wala jàpp nga ne dana jafe lool ndax xam nga ko xam nga ne am na ci yoon xam nga ne yaa gën a xam ne boo demoon ba falu wala bu sag fal continuer ya gëna xamné daf ko du doon lu yomb ndax xam nga li xew yoy nga teel ci ubbi seen bop nit ñi ci lañ lay gëna gëmé ci lañ lay gëna gëmé wax leen li leer li ak li ak li amna ci yene fas naa ko yene ah li ak li nak bu ma leen ko digee du soti ndax jàpp ma ne dana yomb nañ bàyyi ba yegg ci rek xaj yàlla mën na ko dogal boba jamono bey kenn du def ci bopam ne itam yañu fi digon nangam waye dara yeesut ëllëg nga wër ab ñëw far barab sàngam ñu ne yaa ñu fi digoon nangam te ba léegi dara sottiwu ci wala defoo ci dara loolu musiba la léegi mu yóbbee ñu dem ba ñu bëgg ñoo gëmloo ñu maanaam waxi politicien moom yow mi koy dégg yow la engagé loolu waxi caaxaan la sëñ bi amut jenn wax juy génn ci làmmiñu nit lu may ne moom mi koy wax la engagé amut loolu amut loolu ku koy wax mooy xamoo li diina tëral doomu aadama sa dundu gi keraw ba nga maté mu kàllaf ba keraw sa ruux gi di ak yow ak lo meuna dundu ci at jëpp wax ju genn ci saw lamiñ ta nga tay ko yow la engagé lu yalla wax amut jenn wax ben kaddu gu nit di sànni lu may ne amna ño ñoo ñu ngi koy bind diko not diko japp fim amut sa yo andek sa xel gep kaddu genn ci sun borom la ca warit dana ko def boo jàppee na engagé wu nag mooy danga ngaa faatoogut waaye bis boo tollee ci ba suñ borom di la wan réalité yi dana la wóor ne la li nga doon wax yow la engagé loolu da xam mu wax ne kon loolu lu mat a baxel la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa waxoon wax ju solo dafa waxoon ne nit ki daal dafa waxoon ne maa ngi leen di dénk ngeen di dëggu ci seen wax ak seen lépp dëggu ndax dëggukat moo yóbbu nit ki mu dem ba doon ku matale ak mbaax tag mbaax mooy yóbbu nit ajjana ajjana moom mbaax a fa yóbbu nit mooy sabab bi daal nit nag dana jéem a góorlu ci dëggu ak di ko jéem a jox yitte ci léppam ba suñ boroom mujj boole ko ca woy dëggu ya yàlla nañ ko yàlla defal mu ne waaye maa ngi leen di moytuloo wax lu dul dëgg ndax wax lu dul dëgg day yóbbu nit ci kàccoor aku jàdd yoon te kàccoor mooy yóbbu nit sawara yàlla ca la musal sawara ku fa dugg ak kàccoor la fa dugal yàlla ca la musal daal nit it nag danay tàmmal boppam wax lu dul dëgg di ko dëkkee di ko def ci lépp lu muy def ba mujj sunu borom bind ko ca ñay wax lu dul dëgg yàlla na ci yàlla musal loola boobaa kon xam na fa mu nar a mujj kon loolu mooy tënku li nga xam ne moom lañ jëloon tey ci bind ci nahju qadaa'il haaj xam naa ba ëllëg ak jàmm insha allahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin